yajibul xuslu lay waral càngaay min salaasatil asiyaa mën naa bàyyi ko ci ñetti mbir aljanabata la nga xam ne ca mbirum sëy lay bàyyi ko wal haydi ak mbërëg mooy jigéen bu indispose ba jeexal wa nifaasi ak ginnaaw wasin sangu farata war na am ñett yooyu waral ak sangu farata fal janaabatu sangu jene ba nag lay waral sangu ca mbiri sey xismaani ñaari xaaj la ahaduhuma benn ca ñoom ñaar xoroojul mani mooy génn gog mani yu génn na ko bilazatin ci bànneex muxtaadatin banneex bopp doom aadama sunu borom da koo taqaleek moom fii naw min mën naa xewe ci ay nelaw aw yaxa satin mën naa xewe ci ñàkka nelaw mbaadi nelaw di ko gént julit ba gént bi jimaahin di jaamu yàlla ak soxna sa aw xayrihi mbaa yeneen yu yooyu mën na waral jaamab yàlla bi sangu farata war ko wataani ñaareel ba nag maqiibul asafati faddoog asaf fil farji ca bërëbëb tuurukaayab ndoxab jigéen nga ne luy loolu loolu mooy bopp bantab tuurukaayab ndox bu góor bu yërndoo bërëbëb tuurukaayab ndox bu jigéen ba bopp ba lépp yërndu rekk doon lente ne dara xewul sangu farata war na ñaar ñépp waman raa képp ko gis nag fi mi ci ay nelawam maanaam mu yëg ne ma ngay gént kaanahoo yu jaamiw te gént ga daa mel ni ku cay jaamu yàlla mook soxnaam walam yaxruj bu génnul minu ca moom maniyun maniyu su boobaa falaa alihi dara waru warul sangu ji na dem jàpp ji te julli ji dina baax wa man wajada ku fekk fi saw bii ci ay yéeréem man yen man yu yaabisan mu di ca waw laa yadri ta xamul mata asaabahu fan la ko man yu mii dale ixtasala na dem sangu ji farata wa ahada masala te mu julliwaat la mu julli woon min aaxiri nawmatin ca nelaw ya mu mujj nelaw ba foofee mu toog lu fa nelaw yoo xam ne namaaha fii yëgoon na ne nelawoon na ko fi diggante ba mu nelawee ak keroog mu gisee man yu ma diggante boobu yépp na julliwaat mboolem lu mu fi julli woon ginnaaw bu sangoo farata fasloon lii ab dog la fara idul xusli farataay cangaay ba ca jiitu niyatu mooy yéene inda suruhi fa ngay tàmbalee sangu wal fawru ak gaaw bañ a jaarale seen soxla ca diggante ba ba ko xasee tàmbali wëddal ko te ngay bomb bomb bu baax booy xëpp ndox ma boole ca di bomb wal umoomu te ndox ma na matale cër ya yépp na ndox mu doy wa sunanoo ay sunna moom sangu farata xaslul yadayni mooy raxas si yaari yoxo ya indal ko xay ni ba toll fa ngay takk sa montar kal wu dooxi nañu koy defee ca njàpp noonu yi lañ koy defee ca sangu farata wal madd maddatu ak galaxndiku ca sangu farata sunna la walistin saaxu ak saraxndiku ca sangu farata sunna la walistin saaru ak fiiru ca sangu farata sunna la waxaslu simaaxil usnayni raxas këlëb ñaari nopp ya ca sangu farata sunna la muy ndabal ñaari nopp ya waxiya moom nopp nag suxbatu bën bën la boo xam ne daaxilatu fira si sunu borom da koo bënn ca bopp ba wa ama safaatul usni ndaal ndabal yaari nopp ya muy këlëb ñaari nopp ya fa yajibu war na xoslu saahirihaa ñu raxas biteeb ndab la wa baatinihaa ak biir ndabal nopp li yar yépp la ñu raxas ci biti ak ci biir kon këlëb nopp bépp ngay raxas wa fadaa iluhoo ngeneelu sangu farata albidaayatu nga tàmbalee bi xasli najaasati ci raxas fépp fu laal ci yaram wa suma zakkari topp nga raxas bantab tuurukaayab ndox ba fa yan wiite nga fase fa yéene nga ne luy loolu moom la ñuy wooye xobbeeku xobeeku mooy raxas la commencé ci jumbax ba ba ca oom ya ginnaaw ak kanam côté ndijoor ak côté càmmoñ ak ci biir ak ci digg bi ba fépp set loolu mooy xobbeeku